Abdoulaye Koni turam dëggantaan nag moom mooy Abdoulaye Koné muy doomu Sénégal waaye mooy doomu Sénégal bu njëkk euh, bu njëkk a ci équipe bu Qatar Qatar nag xam ngeen ne euh, moom mooy dalal coupe du monde bu ñuy amal ci njeexitalu atum 2022 te moom ak Sénégal sax euh, daanaka ñoo bokk poule boobile moom doomu Sénégal bi nag dafa demoon naturalisé nekk foofu ci équipe bu Qatar mu bokk ci génération bi nga xam ne daanaka ñoom def na taxaw nañu ci wàllum football. mu dellu siwaat ci euh, euh, doomu Sénégal yi maanaam sunu gayndee naka lañ naka def ba éviter yenn piège yeeg euh, moom it ba mu demee nekk foofu Qatar ana bën bët lañu ko doon xoolee ñu seetaan waxtaan bi mu seq ak sunuy naataango muy waa équipe bu Informata dellu siwaat léegi-léegi ci sunu plateau Carlock Abdallah wala Abdoulaye Koné <laughs> moom nag moom bokk na ci Sénégalais bi njëkk a équipe nationale Qatar mm-hmm. nga ñëw Sénégal wax ñu tuuti Abdoulaye Koné sa diggante ak euh, Qatar nan la demee. man dèjà maa ngi maa ngi di di leen nuyu vraiment di baalu ak ñëpp si koor gi euh, yàlla may ñëpp ku di faram wér maa ngi ko mbooloo mu jullit waaw sama diggante Qatar nag man <laughs> dafa yàgg na daal parce que dama teel a dem Qatar euh, avant may dem maa ngi joué fii Jaraaf junior donc par la suite laa dem Qatar depuis Euh, en euh, comme junior euh, par la suite nag après fa la ma <laughs> affaire yi duggee daal <laughs> mais sant yàlla daal. nga dem quatre-vingt-seize Qatar jékki-jékki rek ñu gis la équipe nationale ngay joué eh, ci équipe boo xam ni du sa dëkku réew. fa nga jógee muy Sénégal. Hmm. nan la demee. ah non comme fii déjà fii comme maa ngi joué junior dama gëmoon na man li may dem def. am engagement am détermination donc moo tax ba ma amee sama agent yóbbu ma Qatar maa ngi koy remercier de passage xam nga bu ma demee foofu na en tant que junior si la si la ñafe xam nga parce que xam li nga bàyyi sa dëkk ni balaa ngay dem booy dem fenn da ngay xam li nga xam na tôt ou tard di nga ñibbisi waat di nga bëgg nga investir def si dëkk dara donc il faut à bas la ñafe euh, ñoom aussi ñu gis man ma déterminé en tant que junior si lañ ma proposé jox pour jox ma nationalité donc joué foofu si junior yi euh, équipe nationale junior en même temps même joué junior di joué senior. est-ce que sa intégration yomboon na ci équipe nationale bu Qatar. intégration waaw yomboon na parce que d'autant plus que man euh, xamoon naa li ma bëgg li ma gëm te xam naa sa mbopp tamit donc ba ma demee aussi xam naa si dëkku jàmbur laa laa dem te xale laa woon xamu dara donc euh, il fallait aussi man maam sama fulla ak personalité personnalité wu mais ba ma ñëwee aussi ñoom xam na ne kii du ca nitu caaxaan. donc ils m'ont adopté xam nga waxtaan ak man buggal ma seen bopp xam nga man tamit maam xam fu ma yem def sama liggéey donc euh, pour man c'était pas difficile daal intégration bi. avant ngay am naturel naturalisation bi maanaam ngay décider football mm. que waxtaan nga ci ak say mbokk par exemple. effectivement man de de d'ailleurs sax man ba ñu que xaw ma woon xale laa woon ñu ma da nga dañ la war a jox nationalité pour nga jouer Qatar. man ma ne man lii animaux fi animaux fi woon. man li ma 96 yaa ngi fi euh, woon euh, euh, man leen sama papa sama yaay. parce que am na am na ñu ma samay grand frère yu baax ñoom Albert la Alsane xam nga ñoom aussi ñu waxtaan mais man dama xawoon ragal mais sama papa non non il faut nga jëlal nationalité bi. xam naa loolu moom lu muy wax def ko sama yaay aussi ñoom ñëpp ñu jox ma seen accord te vraiment rëccu ma lu ñu ma joxe accord parce que xawoon naa ragal nag parce que xale laa woon. yéeg senior bay football wax ñu un peu ay match yoo xam ni ak Qatar yow marqué na la en tant que euh, défenseur central nga football ay équipe yoo xam ni vraiment da nga représenté Qatar euh, yu la marqué. ah non foofu moom loo marqué moom bëri na quoi parce que même étant junior sax euh, dañu damay joué match yi am important mais ba ma commencé sama premier coupe de golf. Euh, coupe de golf foofu euh, daf ma xaw a marqué quoi parce que xale laa woon moo ñoo fekk ay anciens ay anciens joueurs fa nekk si dëkk bi yëpp am ay am am euh, ku am sa effectif bu baax dëgër ma ñoo nekk xale ba pare ma ñoo nekk xale instant ba ñoo nekk ñu titularisé sama premier match affaire bi xaw a métti daal mais alhamdulilah sax def defoon naa erreur si match bi mais taxul woon aussi <laughs> ma def sama match donc loolu aussi marqué na sama premier jour boobu moom marqué woon trop. mais après u fur et à mesure nag may dem ma commencé di di nekk di gën a wóolu sama bopp am expérience. parce que joué naa ay qualification coupe du monde ak ñoom Messi Japon jël naa champion league euh, Qatar donc euh, yooyu yëpp. mën nga ñu fàttali sa club bi nga doon football. Euh, foofu ci Qatar ak également responsabilité yi nga fa amoon. waaw sama club boobu tam maa ngi remercié quoi parce que ñoom lépp ñoom ñoom Al Sadd Sport Club. moom mooy équipe bu Xavi nekkoon balaa muy dem Barça donc Xavi fa la jógee daaw pour dem Barça. te ba léegi nii man dam ma demee ma damay damay damay nekk ak ñoom chaque fois en relation maa ngi en relation ak ñoom chaque fois dañuy déggante donc ba léegi nii donc ba ma ñoom aussi vraiment ma foofu dem naa fa football fa nekk junior aussi ba def fa ma foo la njëkk nekk capitaine parce que maa ngi nekkoon capitaine Al Sadd nekk naa fa capitaine sept huit ans quoi mooy balaa may bàyyi quoi bu ñëwee junior joué naa après fekk ba ay capitaine mais par la ñoom nekk naa fa football naa fa nekk fa capitaine aussi en temps may nekk capitaine Al Sadd laay nekk capitaine équipe donc ñoom aussi vraiment affaire bi ñu yombal ma ko euh, mais nag euh, dam lañ jox cër ñu jox ma cër. ñu bëri booy wax Qatar. dañ naan ñi fa dem football yi. ñu jox leen nationalité presque mën leen considérer comme ay mercenaires am na ñu xalaatee noonu. Mm-hmm. yow est que loolu euh, gisoon nga ko ci amoon na benn regard boo xam ni da doon des ci nit ñi ñu la koy xoolee wala doon nga ko surmonter. non man moom kenn jàppee ma mercenaire dama jàpp ma sama bopp mercenaire dama jàpp sama bopp dama dem pour teral sama sama teral sama njaboot donc man jàppama sama bopp mercenaire parce que nit xam nga dañuy toog di wax day jël ay nationalité day nit fii mais attends même Allemagne ñu jël ay ay ay ay joueurs <laughs> africains France même Sénégal ñu jël ay bi bi nationaux mais ils vont ils vont nga football ñu changer mentalité il mu dafa changer léegi te Qatar dëkk bu ndaw la aussi dañu bëggoon main d'œuvre dañu bëggoon ku leen jàppale actuellement ñu soxla main loolu est-ce que euh, quelque part nekkoon nga capitaine à maintes reprises Al Sadd nekk ko ci équipe nationale bi est-ce que après euh, da nga mujj installé wu Qatar toog foofu. waaw ah, nga def euh, wu waaw parce que euh, man installé wu naa foofu parce que dama am nationalité xam nga en même temps entraîneur la foofu am fa kër tamit. donc il faut ma installé mais nag comme ni ku nekk sa dëkk nga am te bëgg nga aussi sa doom yi aussi ñu xam say mbokk xam xam sa dëkk. donc si laa jël sama njaboot andi leen Sénégal ñu andi leen fii euh, avant may bàyyi football la andi leen fii ñu toog installé wu créé samay business aussi xam nga ñoom aussi ñu mun liggéey ma toog foofu ba ba continuer sama carrière mais vraiment euh, ba léegi maa ngi je navette damay dem di ñëw. donc euh, te euh, te vraiment macha allah daal. na yow ban club ngay entraîné foofu ak kañ nga dugg ci mbiru entraîneur parce que joueurs yu bëri léegi gis nañ Xavi. gis hmm. nañ ñoom Zidane. Hmm. Euh, ku ci pare Albourila également. Hmm. am na benn académie à moom it nekkoon na foofu Qatar. dugg ci entraîneur bi nan la nan la commencé. non man parce que footballeur tam balaa ngay bàyyi football il faut nga préparer sa parce que footballeur. du instant bi ngay football instant bi nga bi ngay bàyyi nga sa vie waroo nga war a commencé donc parce que boo toppee lu sa carrière bi sa carrière instant boobu na rek boo toppee rek da ngay da ngay faussé nga war a a xalaat ne yaa ngi war dund donc avant ngay bàyyi nag nga war a préparer sa sa sa donc man moom même balaa may bàyyi euh, maa ngi def sama diplôme entraîneur instant bi pro mooma dese sama licence moom mooma dese te maa ngi koy comme ay module la dinaa ko maa dinaa ko def aussi ci sa carrière quand même yow entraîneur am na ay entraîneurs yu la marqué parce que quand même bu ne Bora Milutinovic yoroon na Qatar. Mm. Eh, wax ñu yeneen entraîneurs yi nga xam ni jaar nga seen loxo te marqué nañ la parce que Qatar aussi il faut ñu rappeler que nii am na ay entraîneurs yoo xam ni mm. étranger mm. de renom dañ fa yàgg di dem wax ñu yow ci yan loxo nga jaaroon ak ah. influence bu ñu def ci yow ah, comme ñu nga xam ne Bora Bora tam ba léegi fa la ko bàyyi sax mooy balaa may ñëw ni ba ma ñëwee Dakar ak léegi defagul 25 jours toog nañ ni di waxtaan parce que dañu may déggante ak moom chaque fois moom aussi marqué na ma Philippe Touré aussi nekkoon na suñu entraîneur actuellement mu ngi Vietnam man damay déggante moom si mu ngi si équipe euh, yi bëri na daal am na Jo Bonfrère benn Hollande itam bu fa nekkoon donc euh, ñoom ñëpp daal euh, ku nekk daal entraîneur ku nekk daal nga jël le maximum li nga mën a jël si parce que dañ lay jàngal daal ku nekk ak ni ak say ni ngay ni ngay ni ngay ni ngay ni ngay concevoir match wala ni war a xam lu baax si yow loo loo manqué nga amélioré ko daal mais ñu yi man ñu ma marqué moom bëri na quoi mooy li nga wax sànq affaire entraîneur yi tamit man xam nga ñoom Xavi sama la sama club nekkoon man di dem di jàng parce que man bu nekkee maa ko njëkkoon am licence fa la defee licence yi yow tirage bi nan nga ko euh, ba ñuy def tirage coupe monde bi tirage bi ah man de météo na quoi ah, parce que instant <laughs> ba ñu waxee ne Sénégal mën na dajeeg Qatar wala Qatar mën na dajeeg Sénégal ku nekk woo ne man ma ko mais est ce que Qatar du Sénégal duñ bokk poule xam nga non bu bokkee poule dugg fii ma leen ah mais affaire football la <laughs> donc nag yàlla def nag Sénégal ak Qatar bokk poule xam naa ne moom du yomb parce que ñaari équipe yëpp équipe yu baax lañ sama équipe lañu te incha allah euh, dina baax daal yàlla na ñaari équipe yëpp qualifié daal. waaw mais yow euh, sa kër Qatar walla Sénégal. <laughs> <laughs> mais man wax naa la sànq dès début man ah, entraîneur la Qatar xam nga mais ni ku nekk sa dëkk nga am mais nag man entraîneur la Qatar. <laughs> mais euh, euh, chance yi ñu war a def suñu côté pour réussir coupe du monde. Euh, Qatar parce que ñun ñi dañu jàpp rek que Qatar ay équipe étrangère la ak ainsi suite yow ban conseil ngay jox Sénégalais yi pour ñu bañ a xeeb un équipe Qatar bi. gis nga ñoom ñu xam ne ne Qatar dañuy liggéey. te daal dëkk sport la du question football rek domaine yëpp dañ siy dañ siy dañ siy def le maximum pour réussir instant bi am na sport bu am Qatar Qatar Sénégal peut-être xamaguñ ko am na battal la tudd battal genre tennis la donc pour wane ne Qatar xool ni ñu siy demee à 100 pour ma leen di wax mooy Qatar dafa changé léegi man seen dafa changé si domaine yëpp parce que jour du fa nekk dañ dem aspire aspire formal leen ñu jënd équipe Belgique Open jël joueurs yi dana yóbbu Europe ñuy ay match amical dem ba jouer euh, Copa America yooyu yëpp pour pour préparer joueurs yi te ñu ngi jouer ay match amical ak équipe européenne donc ñoom bu Sénégal bu ñu yaakaar ne Qatar dafa yomb équipe équipe bu mun football léegi te ku la ëpp organisation ëpp la détermination mën na la gañ a match. sa doom bu màggee da nga naan ko bu football équipe nationale Sénégal wala bu Qatar. man sama doom instant bi Qatar ay Qatar lañ waaw euh, euh, doom nekkoon na Aspire actuellement mu ngi mu ngi jàngoo Canada donc euh, mu ngi mu ngi footballaale donc te mun na football bu bu bëggee tamit bu waree football dem Qatar gars yi dañ koy parce que bëgg nañ ko. <laughs> nan nga dundee décès Bouba Diop bi mu nekkoon ngeen Géondo junior nan nga dundee son non lu métti nag loolu moom vraiment lu ñu métti la parce que comme dañoo ñoo fubalandoo ñoom déggante ku nekk yéene sa bopp morom lu baax xam nga ngay xëy suba nga dégg sa sa vraiment sa sa sa copain gaañu na noonu ak circonstance mu gaañu noonu dafa metti daal. waaw loolu moom vraiment métti nañu trop trop trop même instant bi sax des fois di temps yi passé keroog nañ benn match pour moom fee à Rufisque yi dem nañu demoon nañ foofu. mais aussi des ñu demoon nañu jaale def yëpp mais daal ba léegi nii loolu moom dafa metti quoi te maa ngi rendre hommage maa ngi félicité aussi Lions Sénégal yi ba ñu dugalee bi xam nga fecc feccam beeg xam nga rendre hommage loolu vraiment nit ki loolu nit loolu nga am en plus que boo fu nekkulee nit di la fàttali dafa neex di la ñaanal di la fàttali ko dafa neex parce que ñu ñëpp dañuy dem te yàlla yàlla na rafet daal macha allah yàlla na rafet daal sant yàlla jaajëfalaat bu baax Mokhtar yi mu ñu defal entretien bu am solo boobu ak euh, Abdoulaye Koné di doomu Sénégal mais également doomu Qatar la waaw na Abdoulaye Koné wala Abdallah Koné. Abdallah Koné euh, mooy bu Qatar bi. mais en tout cas c'est c'est un bu nga xam ne moom moo euh, def na parcours bu bu am solo. parce que à 17 ans. Mm-hmm. quand même le dem Qatar. Mm-hmm. donc jóge junior Jaraaf dem Qatar il intégré le le le club d'Al Sadd en en en 1996. Uh-huh. Euh, nekk fa yi tamit wane fa fulla ak fayda ak xereñteef ba ñu ni ko na jël nationalité. Mm-hmm. dem na ba takk brassaaru équipe nationale u Qatar. Mm-hmm. donc loolu c' est pas c' pas donné. Mm-hmm. Euh, ci taxawaayam la joué na 229 matchs il a marqué 40 euh, en tant que défenseur centrale am na euh, lu ëpp ñeent fukki sélection mm-hmm. gagné na 4 titres de champion de Qatar gagné na coupe du Qatar ligue des champions arabes gagné na aussi li nga xam ne moo di ligue des champions d' Asie. mu dugaloon but bu rëy digganteem seen diggante ak Espérance de Tunis. loolu bokk na ci li nga xam ne marqué na carrière am te foofu dafa am. Hmm. Euh, cër buñ ko fa def am respect bu nga xam ne aussi jox nañ ko ko fa mu xam dëkk ba lool miin ko lool. Hmm. donc bu Sénégal di dem ci coupe du monde bu mel nii. Hmm. doomu Sénégal la dëgg la euh, am na nationalité Qatari mais son cœur bat pour le Sénégal ça c'est clair. donc buñ ko mënee jàppale waaw waxu ko waaye xam nga loolu c'est un langage diplomatique rek. mais ku ne xam na ni ki ñëw installé wu Sénégal dellusiwaat dëkkam ndeyam baayam magam rakam ñëpp tey teraanga la fu wuti woon mhm. mhm. dañu waxante dëgg donc maintenant li ci des mooy bu ko Sénégal soxla mhm. euh, te Sénégal dañ ko war a soxla am na ay am na ay ficelle ak ay information yi nga xam ne war na leen ko mën a jox ba bu ñu demee Qatar du ñu am benn jafe-jafe parce que miin na fa xam na fa te mën am na fay a am na fa carnet d'adresse bu baax a baax a baax nañ ko utiliser dompat ci sot la bokk wax nga wax nga lépp ah il est 7h49 ñu daw euh, RFM matin xam naa tey fukki simili euh, la ñu fay jëlee ñu ngi jégalu bu baax élément bi moo xawoon a gudd te itam actualité la di fàttali ñaareelu pàcc bi ne daa ñu am benn fukki culture ni koy defee aljuma bu jot et puis sunu gañ suñu gan euh, pardon muy Valdiodio Ndiaye directeur